d'appartenir à cette nation et de l'être utile mais tay, dafa dem ba une institution de la république mhm. Sans rek mooy comme nous nga wax léegi ci affaire mooy ak affaire nationale mhm. représenter l'état du Sénégal Nous mhm. représenter la nation du Sénégal Tay, dugg fa On ne sax nit ni rek mais privilège mais dafay nekk loo xam ne dañ ko war a seetu que ko ko parce que tay, les lu ñu def mu ñu def ko campagne la coupe d'Afrique ou bien la coupe du monde. ngeen war des personnes parce que loolu moom 300 500 ou 1000 personnes.

temps. waaw léegi may naa presse bi temps. temps oui may naa supporter yi temps. Mm-hmm. donc kooku je pense que loolu dara newu ci. fédération ñoom li ñuy def ñoom ñoo koy defal seen bopp. Ah, waaw ah, ANPEJ li ñuy def ñoo defal seen bopp. Mm-hmm. ñeneen ñi ñoo leen aussi def. bu ñu loolu dañ ni nag bu ñu bu ñu amee lii fii dañ koy dugal. mais man question boo bëgg ñan ñoo demoon foofu voilà am na problème tamit pourtant ci laa bëggoon dugg ñan ñoo demoon euh, ci président de la république exactement ñan ñoo représenté parce que pour man pour loolu problème c'est ça alors que yow yow y'a le président douzième gaynde ñoom ñu ñëw am latitude dem fa te sans vous consulter ba pare ñu jox leen xaalis bi C'est pas un problème ça personne morale. C'est Comment ça s'est passé C'est pas un problème. Comment ça s'est passé Trésorier bi anamu boobu. C'est pas un problème xam nga pare dafa am protocole l'équipe équipe football à l'extérieur Je suis venu à jour recevoir mhm. donc nous à l'étranger supporter nous avons un avion spécial mhm. Mhm. équipe nous palais donc man je euh, suis mais pour des raisons de santé parce que dama demoon def samay opération. donc jour bi équipe bi war a ñibbi. jour ni demoon ci supporter ji dañoo ànd ak équipe bi ñibbi si le même jour. bi ñu de de de l' aéroport ñu dugg si bi ci def directement biir palais. Mhm. donc c'est pas évident que trésorier fekk ka. mais à quel titre le secrétaire général était là-bas. non non le trésorier général duggul parce que demoon ci voyage bi. d' mais ñoom ñi bàyyi ma àggale. Mhm. donc ñooñu demoon ci turu douzième gaynde mhm. bi ñu duggee ci biir dañu ñëw ñu leen. ana waa douzième gaynde wax ne ana masaline de ana waa douzième gaynde kaa leen ngeen signé fii pour le douzième gaynde masaline bu ñu demee signé pour le DSTV est-ce que la c'est la masaline mm-hmm. des sports bu ne ana waa des sports moom day ñëw taxaw parce que des la mm-hmm. bu jotee xaalis bi est que c'est pour elle il mm-hmm. a pour des sports donc l'agent c'est pour des sports Est-ce que je me fais comprendre Je ne comprends pas. Exactement. Et là, tu as raison. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec moi. Pourquoi Pour moi. Ah, ah, mhm. Il n'est pas là. Il son second à lui. Il n'est pas là pour des raisons médicales. Qui est son second Justement, euh, il a son second. Mais je ne demande pas qu'on ait le rôle de présenter ici. Il faut Amina. Je vais expliquer. Aïcha. Je vais vous déglu. Je vais vous déglu ni demoon. waaw trésor demul man ma demone man. waaw trésorier demul. vice président bi demul. Mhm. Mhm. Oh. secrétaire président commission finance demul. Mhm. président commission ni ñooñu président yëpp demuñu. ni demone ils étaient sept personnes. man j'étais la huitième personne. d'accord donc man je suis resté en Égypte au Caire. donc cette personne yëpp bi ñu

am na ñu delloosiwul ñu delloosiwul nag ñooñu la ñu teg daan. léegi la représenté si association bi. mascotte la woon. c'est-à-dire pour ñu bëgg comprendre waaw. mascotte dafa am lu ñuy wax porte drapeau. Mhm. am mascotte. waaw am euh, la commission culturelle animateur yooyu. comme Ndiaye Thiam drapeau mascotte la woon xam nga Thiam set. Thiam la woon. loolu mooy maskot léegi bi Thiam gaa ñëw aussi ñu ñoo toog assemblée générale. Mhm. ñu ne léegi nañ def Paco mhm. mais maskot loolu defalee mooy da defal du waxal. taxawal pour association bi. kon ñoom dañoo dañoo dañoo wàcc seen lii. dañoo wàcc seen lii naan xaalis ba bàjjo. kon daal xaalis moo tas. bàyyi ci posé question bi nag parce que c'est c'est très important. <laughs> Mm-hmm. président ñun peut-être occasion la pour yow. Sénégalais yi li lëndëm ci seen xel yi yëpp. mu leeral ko mm-hmm. soo gisee question yi peut-être li tax ñun ñëpp ñu koy wax. moo tax ma koy leeral mbir mi. macha allah posé question bu la waaw na na sur une minute rek ma jël ki yàgg na trop ci ligne bi. Euh, allo salaamaaleykum. waaleykum salaam man amoo problème. Aïcha. <laughs> en fait euh, damay euh, mhm. pour l'ère du 12e parce que depuis 2018, euh, je pense que nous avons mon ma pour m'intégrer intégrer mhm. parce que bu voyager voyager Russie ñaari parce que mon maa un manifeste établi bi. Mhm. voyager que soit que soit Qatar. au niveau du palais comment ça se passe. liste officielle chaque fois voyage. bu ñuy recevoir palais ñoom ñooy dugg. Mm-hmm. boobu le ministère du sport moom moo koy gérer mais ñi demoon la plupart bu ñuy recevoir ci liste officielle bi ñoo ñuy dugg palais. nga mm-hmm. toog kay secrétaire général que soit trésorier doo dugg. Mm-hmm. loolu moom c'est clair palais moom noonu lay doxee ci liste officielle noonu lay doxee. léegi président nag buy may ci su officielle bi lay basé wu pour may ñëpp pour jox association yi pour jox ñeneen ak ñeneen. donc non lay démé ci pour nous parler déjà officiel. deuxièmement ci le deuxième as question yi nga mm-hmm. par rapport à ñëw assemblée générale femme yu ma deux fois yo y a wax assemblée générale repoussé euh, élection mm-hmm. deux fois tax may wax parce que mm-hmm. ko saxal des fois ci orienté waat ko mu taxaw teg waat ci yoon. Mm-hmm. dama koy wax ñëpp dégg parce que jox na ma cër boobu moo xam ne su defee sax bêtise dama ko koy wax mais marché yi dafa am deux choses. dans la mm-hmm. vie gis nga kilifa dafa ñetti wax waxu néeg waxu ëtt ak waxu penc. Mm-hmm. kilifa ak nu mu munti tuuti bu jiitee dara. nañ ko

contre contre contre cette image là ñun ñu doon dox sax pour jàmm dañ mujjee taxaw. Mhm. loolu il faut ñu wax ko nit ñi xam. Mhm. ñu ngi si doon dox. mais tamit boo dénkee nit pour ñu dox yow doo da ngay noppi tal. isaa mhm. bi ñu koy noppi dafa noppi. ñu ñu doon dox ci suuf ak yom pakook faa pour dox jàmm. ak lu munti xew. lépp ci àdduna day am coow. mais ci mujj bi guerre sax bu ñu mujjee dañuy toog autour d'une table réglé ko. mais ñi ko doon def nag loolay problème bi. problème deuxième ngeen rek loolu la ñàkk dégg peut-être kilifa buñ ko respecté wul aussi fay jafe. donc je parle sur le contrôle ci li ma xam. parce que ñëw na fi fa ñëw nañ fi wax nañ len même dans la ñu dem Côte d'Ivoire parce que état lu mu xam moy le président de l'association. tey Marceline soo comme président deuxième présidente douzième mhm. et ça duñ ko faale yow la waxal et loolu état noonu lay doxé la personne morale la état di waxal. ku mu neex nag créer sa beneen wax ku mu nekk créer leneen mais état il faut nit ñi xam ko. on parle par rapport à la personne morale. léegi nag li wax ci biir douzième ngay ne pour ñu régler ko c'est juste rek ñu am yar am teggin xam ne Sénégal ñëpp a ko bokk association bi nu muy doxee nga tënku fa nga mën ci ànd gis nga assemblée générale bu ñu doon bëgg def jotoon naa texte bi. pour nous demoon euh, fi, euh, fi, journaliste yi di nekk. pour def étude jour bobu la Ndiaye drapeau décédé. té Ndiaye drapeau du ministère. Mm-hmm. donc on était obligé d'arrêter ça. donc yooyu bu amee da ci ciy ak rek aduna gis nga quand on a la patience da ngay am lépp. Mm-hmm. mais bo démé xool rek lu bëri day yàqu té looloo xawa a deuxième yenn xool yi ñuy demee te du ñu ak patience. je pense que le problème sera réglé inshallah, parce que ñun ñep ñoo bokk. c'est pas bien aussi yow tamit nga créer sa douzième gaynde propre. Mhm. di continuer di dem. Mhm. ne man maa fi nekk maa lii kooku loo koy mën a waxaat su bañee woo nañ leen su bañee du loo ko mën a tal mhm. donc man li may déplorer rek mooy wax ñu ñaaw yi ñu doon wax ci nit ñi. te rafetu boo ëllëgee après day des quoi parce que mi ngi ciy des mu ngi ci Facebook mu ngi fépp. donc Issa lu noonu am na njaboot. Mm-hmm. am na kii la je lui ai pas des wallahi lazim mm-hmm. gis nga Qatar bi dañoo xuloo ba saf saf ba ne ko di nga dugg jéggalu ministre mm-hmm. daf ko def dama ko jox orientation par force man mënoon naa leen bloqué duñ dem te du mujj fenn mais dama wañ loxoom te lan moo doon bëgg-bëggam mooy ñu bëri dem man ko nag dafa am nooy démarché autorité comme ñun kenn duñu teg par force da ngay waxtaan ak ñun ci diplomatie donc yooyu il faut nit ñi xam ko que itteem mooy mu baax. Mhm. itteem mooy mu dox mais tamit il foog ñu ànd boo joxee nit cër da nga koy respecté. am na solo kilifa. Mhm. sa kilifa des sports am na loo xam ne ci biir ni nga koy waxee. Mhm. dog ko ci mbedd. et c'est pour tout le monde noonu c'est ça la réalité. du Sénégalais.

mais xoolal bi ñu 12 douzième Gaïndé ba léegi est ce que mos nga dégg voyage am ñu dem ni kaas naa war a montam wala war amul. mooy mhm. di Aliou di wax léegi parce que là-bas on s'accepte et on se respecte. Mhm. ba pare dañoo tëral ay charte ñu xam ne tey Amina mi dem na. Mhm. mais xam na ne bii di ñëw du bokk si ñuy dem. Ah, wala bu war a bokk si ñuy dem dinañ xool critère d' abord de responsabilité de d' assiduité de performance. longévité. non. Euh, non non pourtant je suis nañ fa ay nit man président man 2012 2019 7 ans voyagé dans association sept ans. ça veut dire que c'est pas ma personne qui est importante. Hmm. parfois il y a des titulaires indiscutables. mais comme ñoom ñi di taxaw si kanam. je pense ñooñu kenn du leen changé ñii ay mascotte lañu. Ils c'est ça. ñii mascotte lañu dañu porte hmm. ils sont 10 personnes. Ils dañuy dem. animateurs dañuy dem. des hmm. drapeaux mascotte day dem. les ambianceurs. Mhm. à tout de parce que du mat. Mhm. personnes ñu billets on est quatre il faut qu'on s'oublie. c'est vrai parfois du ñàkk ngeen de famille. non non monsieur. am. Ah. non non non léegi nag xam nga lu tax mhm. parce que nit ñi dañuy on part d'abord pas par choix mais par élimination. ñan ñoo mënul dem am ñu ne ah ñu ne mën ñoo dem parce que dañuy liggéey. Mm-hmm. ñu ne mën dem parce que amuñu autorisation. Mm-hmm. ñu ne man demoon a dem. Oh, loolu lu tax. loolu c'est la fraternité. c'est important loolu moo am douzième gaynde charme la moo tax léegi nag et puis gis naa sax léegi esprit douzième gaynde Sénégal d'abord bi ñëpp ñu ngi siy inspiré wu maa ngi dégg tout récemment le président son excellence Bassirou Diomaye Faye qui se trouve être léegi le premier douzième gaynde mm-hmm. muy wax la patrie muy wax la don de soi. pour la patrie la loolu mooy Sénégal d' abord. solo. alors euh, soo soo ko laalaalee di nga duggaale directement ci sa thème. parce que sinon du ñu du ñu mën a def sa résumé mais mais dama ko bëgg a féliciter les les agents. te armature maa ngi dëgg rek mu ne léegi man dama man dama ko bëggoon défier. Mhm. ñun judo ak karaté laaj leen je contrôle je parle sous le contrôle de Souleymane Ba Diallo. Ah, voilà ñu ngi koy nuyu. Mhm. lépp lu kaate def buñ ko jegee na nit ñëw. mais arts du ñaar yooyu kese na. waaw non arts martiaux mais judo yi mais ñun ñun on a toujours été à côté des économies sociales Sénégal c'est-à-dire ñun fédération daf ñuy saisir xam nga ku jël organisation dafa nii laay def lii laay organiser. Mhm. athlète bi mooy ñëw fii mooy fii la arbitre bi nekk fii la presse bi nekk fii la supporter bi nekk soo ko waxul duñ def. Mhm.